jadi jadi jol naw yoon di nga jël di fii waay lu ci ñaar mu tuule amul lu ci di ba tey ci seen scandale du jour euh, Bassirou na ginnaaw bi ko a Maimouna a dalalee ñu déglu ci kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci jëwriñ bi nga xamante ne moo jiite euh, communication bi maanaam ministre de la communication ñu déglu ci vidéo bi. et d'ailleurs may ça me permet man ma dugg ci conférence de presse ministre bii nii mais may. ministre la communication mais ministre bi c'est une calamité de. <laughs> Eh mais sunu ministre la mais c'est calamité. ministre bah, ministre. <laughs> ministre c'est une extrême calamité. <laughs> mais ah très bien. Bachir Fofana ministre bi c'est une calamité euh, ministre bi nga xamantene def na euh, li nga xamné ne moy euh, communiqué waaye ki ne donc à euh, liste bu mu publier dara du ci dëgg mun Maimouna Ndour ci boppam démb amal nañ li nga xamante ne moom mooy conférence de presse daal di weddi loolu pourquoi pourquoi vouloir mettre mala mal à l'aise diggante presse bi ak population bi pourquoi lan nga ciy gagné lan nga ciy jublu nit ki buñ la jiitalee da nga war a mat njiit nit ki joor ngaa jomm di génnee lu mel ni circulaire lu mel ni papier lu mel ni communiqué boo xamante ne eh, dina am ñaar ñetti nit parce que ñii il n'ose pas te défier te xam ne li nga wax dëgg la on est dans un pays de droit boo waxoon lu dul boo wax boo waxee dëgg Bocar Thiam mii du génn ne la du dëgg te tey mu xam ne wan mën nga koo porter plainte yoon wóolu ko mais nee na la li nga wax amut somme yi nga joxe foofu du dëgg mun Maimouna Ndour en tant que femme toog na def conférence de presse xamal la ni lii du dëgg te bu yàggee li nga leen di wax nii ñoom mën nañ laa toppee loo xamante ne tey dañ lay jëlee sa poste boobu dañuy fexe taxaw pour ñu jëlee la ci sa poste boobu ministre yi ngir yàlla yónnante bi dee leen wax population bi dëgg te ngeen bàyyi jaxase bi nañ bàyyi jaxase bi ay kilif kilifa du jaxase kilifa day dajale du féewaloo lu ngeen bëgg kut ko kut ko sénégalais yi gis ni on a un on a on a une presse de diable pourquoi lu sen taxaway yep ngeen bëgg taxaw jaxase askan wi ak presse bi et c'est pas tout presse bi nga xamanté tay buñu waxé yor fiscal mais man j'attends que RTS fay fay ba jeexal ñu ne ah ñun kat RTS fay na Soleil fay na waa d'accord léegi ñi des nañ lañ toppee fay mais yéen li ngeen yor fayagoo leen ko ngeen bëgg a imposer ñi nga xamante ne ay néew di doole lañ pour ñu fay ko force force te bu ñu newoon fay ñu sax d'accord mais ni nga leen bëgg a imposer fay mi moo dul jaarul yoon tey seen ministre bi génnee loo xamante ne communiqué bi ki fi nekkoon génn na ne du dëkk ñi mu ko waxal def nañ conférence de presse ni amul ñun manam premier ministre bu waxé dina genn am ko ko wéddi ministre de la communication Bocar Thiam genn na wéddi wat ko may mën a def na conférence de presse wéddi wat manam yéen lan lo leen mësa tek rek wéddi nañ ko on nom quoi parce que kilifa dañ lay respecter té yow yaay te def li tax ñu respecter la tamit jadi jadi jangan tahu Yon di gwe chou di fi waj Yon ti nap wapou le